kon nak mom man ta fay serigne muntaha ndax da ko yombalal ab liggéeyam da ko fekk ci waar wi gën koo fonk waar wi dax koo liggéey gën koo bëgg liggéey bi yéene koo liggéey bi te jàppale ko ci liggéey bi loolu mooy waxtu wu ne bu masaa jot day ñëwal boppam fii toog ci jataay bii fekk lépp lu mu yàgg-yàgg da koy muñ ba mu jeex bu noppee mu jël kàddoom gu tedd ga tontul boppam dàggi murit yi yeesalaat leen ñaanal leen àgg na ci at moo xam ne dama ko ne ren sax day yërëm nañ la lool ci ñëw gi waaye dañoo xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa la mu ne ma bu ma àggoon ci ñu di ma teg ci puus puus di ma di ma indi it danaa ko def waaye nag nun noo dem ba xam ne ñemeetuñoo yëkkati sëñ tubaa danoo war a bokk ci ñi koy sakkanal te dañoo war a wone yoon woowu yi ne bañee lunu ko te nangul nanu ko waaye nag dañoo bëgg ñëpp jàng ci nun ñu xam ne lu gën a rëy bi su xaside amut ndegam teggil nañ ko ko ku ne war ngaa jànge ci loolu war koo teggil yu bari te war koo sakkanal loolu rek lañ ci jublu waaye bu nu neexoon mu ñëw buñ ko bàyyi woon ak sagoom it dana ko jiim lu metti metti dana jiim a ñëw waaye nag ndox bi mu na ko nangulee ndokki bi mu boolee koo xam ne mooy jëmm muy sëriñ Basiru mi waa dëkk bi yëpp tàggoo nañu coono fan la ñuy jëlee soow mu baax ndax Cheikh Sow indi na solution bi Cheikh Sow ñëpp naan ko neex soow Touba gi yëpp ak li ko wër moom la ñuy wër Cheikh Sow neex soow soowam baax na set na te neex na boo amee xew soxla ci soow ak lu mu bëri bëri quantité boo ci soxla boo ñëwee ñu jaayloo